laa ilaaha illallah laa ilaaha waxtaan ci sëriñ tubaa ak Seex Ibra nag lu yomb la lu jafeñ la ndax jafeñ gi mooy koo xam ne kii xamuloo ko ba noppi fas ko yéenee xamle dara jafewul loolu te sëriñ tubaa ak Seex Ibra bokkuma ci ñi ko war a xam ndax sëriñ tubaa dafa wax ni xaabat maqaami an siwa baaxil karim wa inani abdun xadimun laa yarim soo dut yàlla doo rasulullahi salallahu alayhi wa sallama dooma xam kon defe ni xam nga sëñ tubaa ak bokkaale nga ca te itam bu fekkonte ni sëñ tubaa def na kuñ war a xam fa xamuk doomu aadama war a tàmbalee ba mën a xam sëñ tubaa foofee sunu xam dalewu fa دا فا وخني سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالتلقي بو ني بيندغول نيت كو جك ك كمني نيت نيب دي ادم عليه السلام فكنا سون بوروم خمال ماني يو خادم الرسول نيلاي توب الك دون ديم سوارا تي بن بيندغول سمام سقام دو فا تامبلي ñaarel ba itam def di sëñ tuba loo ci wax lu ne ak lu mu rëy rëy rëy rëy rëy talibe yi teg nañ ko kon xamle ko dana jafe ndax koo xam ni kii soo tàmbaleen di wax dale ci sëñ tubaa yàlla la saxit nit ñi gën a topp si gën a déglu di wut loo ca teg loolu xamle ko dana jafe te fa ngay war a tàmbalee ci xamle ko xamle la fekk na loo wax ci sëñ tubaa fekk na wàcc nga la ca ëpp njariñ mbaa wàcc nga fa mu amee li ko ëppal solo muy ngërëmal yàlla ndax dafa wax ni ba ñu bindagul ruux yi juróom-ñaar fukki junni at fekk na ma làq ngërëmal yàlla te nit ku ne palmarèsam ba ca gën a rafet mooy fam làq ngërëmal yàlla te làq na ngërëmal yàlla juróom-ñaar fukki junni at te bindagunu sunu maam aadama ak awa ajaabani rahmaanu qabla alxalqi sabaina alfa sanatin bil xaqi te foofe xamu kenn mënu faa dale kon waxiw ma ci jéem a xamle sëñ bi ndax xamuma ko maa ngi wax ci taalibe bi rek di sukkandikoo kàttanu yàlla ak dooley sëriñ Touba ak aslëf ci téere sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Bachir euh, Cheikh Ibra moom it nu ma réeree sëriñ bi ni laa ko réeree waaye ñime ñimelu gi ma mën a am ci jéem a xam sëñ tu Cheikh sax jéem a ca waxtaan jaare foofu sama waxtaan dafa yaari yi la ju jëkk ja mooy baabul muridiina te fa aatul buyata min abwaabiha ab néeg ca bunt ba lañ koy jaar ba ca topp mooy dafa am fu nu bokk dajeeg Seex Ibra foo xam ne fii dajewuñ fa ak sëñ ba muy di taalibe ànd gëm sëñ Touba looloo tax ci bokk googu nu bokk ak moom loolu ci la nu mën a jaar ba amul ñime ñimelu sax di wax ci moom ndax ni nu réeree sëñ bi ni leen ko réere noonu nga ma wax nag ni nu mu jébbaloo sëriñ Touba bi nga xamante ni bii gane ne àdduna ama sarha atum junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukki at diggante gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ak booba nekk ak baayam dox fanweeri at yoo xam ni Cheikh Mouhamadul Bachir nee na laa yuqiimu wala yaquumu jéemu la taxaw jéemu la taxawal dara moom Serigne Touba ngir sédd baayam ab cër ak di ko wormaal diirub fanweeri at yi mu dund ak baayam وجعل يتواخل في الخلوات ويافل في الفلوات زهدا في كل ما سوى الله مختصفا لغاية القصوى نهاره سائم لياله قائم لا يفتريه عن ذكر وتلاوة رخبته واحدة وغرده واحد وهو رد الله ورد رسوله صلى الله عليه وسلم تندوم تساهر تلنا دون بوتي teel naa صلى الله عليه وسلم أجيكم يب alayhi بيري أجيكوي باتنيه donu xam-xam ba ak yenkewal ga ak dënn bu yaatu ba ak muñ ga ak ngor ga ak xam-xam bu xóot ba ak lewet ga ak yërmande ja ak fonk ga yàlla ak nangu gaa jaamu yàlla ak jëm jëmm ju teel a samp ga lépp moom sëñ Tuubaa teel na koo doon lool ci yonent bi sallallahu alayhi wa xam naa su fekkoonte ni waxtaan yi danañ ko may diggante boobu danañ fi waxtaane yu bari moom sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Basir nee na وصرف كل ما تبسم من الجاه والهز والمال وذكر الجميل في ذات الله تبارك وتعالى وتجرد الاستقامة الكاملة والزهد بملازمه صلى الله عليه وسلم ci fukki atam ak yaar la tàmbali guddi yépp mu di ko taxaw bëccëg yépp mu di ko naafi la guddi yépp mu di ko naafi taxaw di naafi la jàng alquran ni ma wax ne xaa iman taaliyen bi xayru luhooni bëccëg yépp mu di ko woor lu ñaari bu dul ñaari bëccëg yi xaraama xoor rek boole koog sax ci salaatu ala nabi waxtu wu ne musta jaar ci lenn loo xam ne lii lu muy tuub la ni ma ko waxee wax ni bokk na ci li nga xam ni kenn amu ko kudut man muy musuma def dara lu ma astaxfirlaa di fekk wasixtu bi rabbil arshi abdan lahu bihi wa ma zaala xalbi bir la zaata xayudi ci loolu la sax fanweeri at yooyu mu dund ak bàyyam nag amu fi mbubb ñaari mbubb amu fi ñaari peeri dàll amu fi mu néeg amu fi mu fas amu fi amu fi mu xar lépp lu mu am wasarafa kulla ma tabassama min aljaahi wal hizzi wal maal fi zik fi xidmati walidihi sa radiallahu taala anhu wa anna bi jaayihi lépp lu mu fi am rek boole na ko jëmmam jox baayam defub taalibeem di toppam di sahabaam di doomam ja mu gërëm ja mu gën a déggul ci njabootam moom sañ Tuubaa ba baayam am fanweeri at fanweeri at yooyu dolli dolli ku ci lim bi yonent bi eh, sëñ Tuubaa fekk gàddaay gi mu junni baak ñaari téeméer ak juróom mu junneeg ñetti téeméeri at yu mat sëkk dëppoog lim bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxan wax ni fa tuubaa li man balaxa mi at rabiatin bahdal alfi bu gàddaay gi amee junni at ak ñetti téeméeri at xarnub téeméerum ñeenteel ba ña koy fekke texe nañu ngir kañuy jamonoon teel buñ ko toppee ba gàddaay gi amee junni at ak ñetti téeméer sëriñ tubaa wax ni cheikh mohamadul basir nee na di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram ama sasin atum junne ñetti téeméer nee nag guddi keroog di juróom benn fukki at yi sëñ Mor Anta Sali ak menn at ci la sëñ Mor Anta Sali faatu bu mu faatoo ca Mbàkke Kajoor sëriñ bi taxawu ko jaayante fa ak moom yu bari dal di jël baaraamam teg ci dënnam nag moom sëriñ Tuubaa wax ni fal ishaarat tekk fii junj bi doy na man mii la xam Muhammad doon wax ca Madinatul a dal di tàmbalee woote nag moom sëñ bi loolu aw tamxarit la ama assassin, ama assassin. aw xarit aw diggi aw gamo rak ci gamo, rakati gamo, mamu kor, ndayu kor, barxlu kor, ci ama assassin. ci la yalla atte mu gisé ci cheikh ibrahima fall ci zahir fi ci aduna ndax bo gisé ma xni ci zahir ije ci magni kuma ni cheikh madou gay je moy mas ñew fi serigne touba ni ko dañuy laaj cheikh ibrahima fall mi fekk nu fi ba noppi jiitu li lim jiitoo lu ko def nee na sëriñ bi ni ko pesum gimiñ boroom a koy fajal boppam demal ba ca moom du ñàkk mu xam la mu def ba jiitu leen nee na mu dem fa ba mu fa demee ni ko li ma lay wax day def si la moroom taxul dara waralu ko lu dul yéemu ci sa mbir di la laaj rek naka nga def ba jiitunu nee mun ko ax Ahmadou Gaye jëmooy jëkk a jébbalu laa leen jiitoo nee mu ne ko kañ nga jiitu kañ nga jébbalu won cheikh madou gay jëmooy niko kérok ba ngay and ak cheikh adama gay di ñew fekk sëriñ tubaa ca mbàkke kajoor boba fekk na ma jébbalu serigne touba niko yow de wax mbacké kadior ngay wax lolo yagul ci bir la wax kañ nga jébbalu won nee mu ni sama baatinum jébbalit na ndax jébbalu na ci serigne touba te ganewuma aduna. boba mangi ci sama biru wajur bu jigen neena cheikh seex di reeni ko ah Modou Gaye jëmooy tel nga jébbalu ndax teel a mën ta weesu jébbalu te wo waye nak dama la jëk jébbalu ndax bama may ci serigne touba boba nday ak bàyyi amut boba nday ak bàyyi amagut kon lolou la junj wax ni numa ma ki kii na ni cheikh Ibra waye yalla atte bi nga xamanteni bi serigne touba wajiruma nelaw na mbacke kadior saxna fa ñaari at mok ñu dan daan jangal mba am atak aslëf niko cheikh seex Lamine Diop Dagana waxe ci tirim fa baqiya fi mbake kadior sanatan wa ziyadatan la wax des sax fa aslëf atak uslef am ñu wax ñaari at yo xamni mi ngi koy jàngale xam-xam ak diine ak yare ak jàngale téere fiqi fiq tax xam yàlla ak top yàlla حتى جاءه أمر من ربه عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم ودعا بتربية الهمة وجمع التلاميذة خطيبا معتمدا على الأكاز العزمي شيخ محمد Lamine Diop Dagana nee na bam fa ameem at ak aslëf ndigal dikke ko bàyyi ko ci sunu borom azza wa jalla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wooteel ci yare ak tërbiya ak yitte ak yëgu xol te bañ a saxal am njàng ndax sa jamono ubbi wuñu ko ci njàng dañ koo ubbi ci tërbiya yare yar góor def ci yittey boroomam ba yeggale ko ci boroomam nee na wa jamaha talaamisata xatiban mutamidan ala ukaasil asmi sëñ tubaa dajale sare yépp di waxanteeg ñoom booba nag fekk na sëñ bi amul lenn ndër lay lu dul yatu dogu rekk ak yamale wéet ci li neex yàlla ak wéttali ko wét wéttali ko lu neex yàlla ak wét ci li neex yàlla lu mu ci am jël daldi ni alaa man kaana saxbu naa li taallumi falyansur li nafsihi wal yadhab xaysu shaa ku fi jàng indi woon na nga waxtaan ak sa nga te laxas amatuñu jotu jàngale wa man araada ma araad naa fal yasir bi seyrinaa wal yaqum bi amrinaa képp koo xam ne kii fi ma bëgg a jëm nga bëgg a dem na nga sax ci sunuy ndigal te fas yéene waaj xam ni yeggalee ci yàllaa ma tax a jóg waaye jàngale mënatuma ko loola ba mu amee daara ji daal di tas sëriñ tubaa sax ci loolu ba ca koor wa ndax xam nga ni sëriñ bi itam ay tànkam rek la Seex Ibra jaar ndax sëriñ tubaa bi mu jógee di wut boroomam jaar na ci ku ne dem na fu ne topp na ku ne dafa wax ni mashaayix yi sayduna jilaani wa chazali maahu tijaani Cheikh Abdou Khadir Jilani ak Cheikh Ahmad Tijani ak Abu Hasan Sajili ñooy samay sëriñ jaar na ci seeni wir di jëfe ko waaye lay baatinub loola du caagiinu wut gu muy wut yàlla di ko fa seet ngir wax na ni teg tegtalub yàlla la topp yàlla mosu koo sori benn yoon la dalani allahu ala laahi bila taxarurin wa takk balaa waaye lay baatinub loola muy jaar ci wirdu yooyu daf di jaami yàlla jaamu yàlla yi jaam xeeti jaamu yi wirdu yooyu dañoo mel ni commerce koo yor wirdam di ko jëfe wird wa mu jaamu yàlla ba yegg ci boromam am ijaaba yàlla jox ko ko muy mu dib sagam di alalam ku ca jëfaat ëllëg di ca jaamu yàlla moom moomee ñu soloo woon wird wa da cay am dërëm tànk da cay am intérêt te yomal xiyaam du gent kon ab yool du fa doy aw yiw du fa doy sëriñ bi xam ni su tëbee tëb tëb fent yoonu boppam yoon woowee dana lëng yoon yépp dana leen far néewal leen doole te dërëm tànk yooyu yi nga xam ni Abdou Hasan Chazali ak Cheikh Ahmad Tijani ak Abdou Khadir Jilani ñi ngi koy am ci wird yi nga xam ne ñi ngi fi desandi nit ñi di ko yor loolee sëñ Tuubaa bugg koo fànq te moom mu xam ni yàlla barkeel na ko baaraka lii fil harakaati wa sukkoon rabbi lazi qad qaada lii kun fa yakkoon yàlla barkeel na ko barkeel gu toll ni su fekkan ab xer képp mu raay ko sax xer ba dana jebbi loolee tax sëñ Tuubaa sax saxalal ñooñee seen wird ya ci jaar ca jaaral boppam ba nga xam ni lu mu néew néew néew adduna du dem mukk ba yooyu war a gent faaw mu di fi des ngir sëñ tubaa ci jaaral boppam waaye ba mu demee ba ama ay sa sëriñ bi wax ni ci ama ay sa sin la ma sama borom tere la sama borom xamal ni dootu nangu moom moom yàlla azza wa jalla ci ma deeti jàpp ci kenn ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala ma deeti duufalal kenn mbiram ndax garab bu la sutul du la may ker te ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam féete naa ko kaw وخني حرام علي أن أتعلق بأحد على وجه الأرض وفي ذلك ليس الاستدلائل للمسايق ولا استقارا لهم إنما ذلك من وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علي يربني ويرقني بابا نينا ينتي بي تيب نمت ينتي بي كومو تيب تي خيتام وي موروم كنين دانا جيخ تي موم لولو تاخ سنت بي دالدي باي ويرد يويو نداخ دي مو دك بام نيهكو مو واتي لين دافا موجو يالا نانغوتوكو رسول الله صلى الله عليه وسلم تيب سنت وا شيخ ابراهيم تام وو يون لا جار ndax ba mu jógee ci diggante salaatu ak sakkaatu ak sawmu ak ijtinaabul xaraam ak am amtisaalul awaamir la jaar ci xawaaidul uloomiya ci lépp loo xam ne xam-xama ko tër ñu tër ko ci sarixat mutahara ak yoon yi mu fi fekk mu di ci wut boroomam di ci wut boroomam di ci wut boroomam ba daj yàlla foofee Sëñ Tuubaa toll woon ba yàlla ni ko demal nga toppi rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallama mu taxaw fa ndax adduna juróomi gaara fi nekk ca yooyu jamono شيخ ابن جيجين لين موي توحيد الندامة توحيد الاستغفار توحيد التوبة توحيد الدوامة توحيد الفنا توحيد الفنا نك بوشي يجي تشي نجي يخي تيالا تاك با كولا ووشي يالا نغوي كولا ووشي لودول يالا يتم يونغ ويو كو تيالا فافي نك فسيخ ابن تولو داج برومم برومم نيكو جامانو جو نيكن رك لاي ويو كو كو واخا جام ني تيوينا احمد بامبا بو نوبي كون سو بغي يكسي فينون دا ngay dem ba fa mom nga jox ko sa bop mo la meuna yeggale fi fi man Seex Ibra nee na ci ndigalal sama borom kon ci laa jaare ci di seet kook yi nee na yàlla waxuma benn réew waxuma wenn askan waxuma sant ba waxuma turu ndey waxuma turu baay Ahmadou Bamba rek la ma wax Seex Ibra nee na ma di ko wut ci ñu nëbbu ñi ci ahlul xëybu nga xam ne juróom-ñeent fukk lañuy doon ak juróom-ñeent baaxoo wu ñoo feeñ nee na ma wut ko ci ñooña di ko ci wut ba gisuma ko ca nee na ma di ko wut ci ñi nga xam ni ñooy ñooy ñi ma borom tur yi nga xam ni xamees na leen ñu di leen topp ku mu ci dégg ba dem fa yow su la seetee su fa amee ab diir dana sikkam dana jeex ci ni yow mi doo ko sëñ yàlla seetloo ba na mu demee tey ba daqaar fekk fa sëriñ tey ba Ahmadou Ndumbe Maar Sill nga xam ni keroog bi sëriñ Mor Anta Sali faatoo ca Mbàkke Kajoor moom moomee moo ko jullee ala janaasatil walid ba mu fa demee fekk sëñ tey ba diko si won ci nitu jamonoom te wegu won lol di mbokum seigne touba mbab ak mu yoron mbokam soxna Aysatu mbake bobo moko yor di bàjjanum seigne bi ci saahir ba fa seigne cheikh Ibra demé di xol seigne Tayba lu mu ko lacc ci yàlla bala mu ko ca tontu ubi ay téré di ko ci set joxamal awal wala sani wala tafatul hukam wala mu ko set ci téré te bu ko ubbee du ko ca mëna wax lu wér fekk laaj bo xamni bi ahlul ghaibe ko mëna xam wala kuy janoog ma mahfuz wala koo xam ne kii mën naa gis malayka yi wala ku mën a gis ku mën a wàqanteeg raqiib ak atiid ñi ciy mbaggam ñoo mën a moo war a mën a tontu boobay laaj nga ubbi ay téere te su su ko ubbee naan ko xiila wala xawlaani wala taraddadun wala xilaafun Seex Ibra xam ni kon kii nga xam ne lii ma ko laaj baati na koy tontu ab sañ-sañ koy tontu xam sa borom a koy tontu mu di ko tegtaloo ay téere maa ngi jàpp ni. ki ma yàllay seetloo jamono ya ma koy gisi ci nit ñu weex laa koy fekk kon naa jaar gànnaar gi gën a jige su ma ko fi seetee seet gisuma ko ma dem naan mbaa ma dem Iraq ba ma yegg Madinatul Munawwara ga mu nelawe moom Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbaa màkkatal mukarrama ga mu gënee adduna yaakaar naa ne ka ko war a wuutu ci kaw suuf daal bu ma yàggee ci nit ñu weex ñi dama ñun ñun dama fi yàgg jeel fi sama doole te duma ko gis sax foofa te boo fekk na mi am kër sañ ba googu soppi na kër ga defaraat na ko def ko ay dog def ko utal ko ay kees sax ci liggéey rek waaye mu xam ni liggéey itam dafa am foo liggéey ñu nangul la ki ko yàllay tegtal gisagu ko mu tëdd guddi fanaanee def listixaarug sunna ba asamaan setee booba fekk na sëriñ bi mel ni am ndënd moo xam ne mii dañ koo foor ba mu neex waaye amagul kenn ku ko tëgg te booba xam na ni jëmm joojee koy seet te gisagu ko mooy ki nga xam ni moo ko jox dëgg moo ko jox dëgg-dëgg xaqi xam fa nga xam ni fa la ko doom aadama war a teg ak na ko nit war a mën a xoole ba jariñu ci moom mu yabal seex aadama gi ak seex Maxtaar Touré jox leen ay hadiya yu jëm ci sëñ Tayba boole ci ab bataaxal waaye fekk na def na ci ñoom ñaar ñooñee mu yónni loo xam ni ndaw loolee koy seet su ko gisee su gisee ñaaram ñooñee te xa te la muy la mu wax ni moom lay tuddoo mbaa ak xamam googee ci yàlla doon dëgg ci moom su leen gisee dana leen mën a tegtaloo ba ba ñëw ba nu demee joxe taxal ba sëñ Tayba tontu sëñ bi joxat ko ndaw ya Cheikh Ibra gis len dal di wax ni ñaari jëm ñi de suñ doon jigen dana ni nañu ban aw lor ndax ko and ak dara ak ko andu ak dara yom na xam ndegam da ngay sey goor ba dara toppale ci kula gis xamni dara ngi sa kollu bi sa kanurullahi laahi leeru yàlla ku ci mom ku gis te xam ci yalla dara dana xamni ki jaar na barab Cheikh ma top ci ñom di len laaj di len reju ci ki ñu na mu tuddu ak na muy jaree ak lay yitém ak ñe nek fa mom ci lu mu leen xir ba xawa am lu sedd xolam ci la lu ko yaakar lo la ko taxa a jóg mu top ci ñom lolu nak deppona ak marsiya bi nga xam mom la mom la serigne Moussa Ka marsiyal Cheikh Ibrahima Fall wax na ca ni Cheikh Ibrahima mas nay xibaar ak jébbaloom bay wax ni yàlla mi ko mom moko ni Bàmba mo la mom rasiko jox ko say pexe tektal ko yono ab murit di aw baraw pexe marit ba am ngeureum bari mourid te re di mex mexi mu daldi dem tey ba ndaqaar ngir deg bamba di fa xaar seet na sëriñ ba ndaqaar cim njàng lay xamee mu teddu gudi listikhar ba mu xëyee ba tisbar serigne makhtar touré fa jaar leeram nga wan ko ay pexé makhtar touré nga yori jor yenu ko jëm mbàkke kajoor cheikh bamba yoni ko ci bour cheikh ibra top ci fexé ba jix ba gis fa cheikh adama gey sanni biram daldi ci ngoy mu won ko bamba mbeur mu rëy serigne bina ko fofu xey ba nga xamanteni bi cheikh seex ibra ak cheikh makhtar touré ak cheikh adama gey ñu jóge mbacke kajoor jóge tay ba jëm ci mbacke kajoor ci wéru koor wowe cheikh bi def na foofee ay kiman yu bari ndax buñu doxé xal wi ñu jaar ni mu yaato dox nañu ba am ñangor galen leen ñangor mo xamni mi fess na del yoon wi bop bi kenn gisuko genn bi kenn gisuko jëm yaram wi rek mo nekk ci digg yoon wi fess ko del ba nga xamanteni bi cheikh adama gi momé ak cheikh nañ ba yam ca wañu seen xel nekk ci wàññiku bañ ko jubee rek Seex Ibra daal di dox fi seen kanam daal di ko daal di ko nis niqtee daal di koy tàpp taret fulli ko tàggale der ba ak yàpp woni addiyi ka ma jëm fa moom te gisaguma ko ak yeneen yu bari yu mu fa jëf ñooñu itam daal di yaakaar ni kon ku ñemee lii mbaa nga man lii te wàññiwu la dara dafa am lu yàlla jële ci yow ndax ni ko alxuraan waxe fa laysa alal ahma harajun wala alal ahraji harajun wala alal maridi harajun ñu defee ni kon kii li tax lii mu man ko dafa bokk ndax booba yooyu xeeti kéemaan xewagul ci yoon wi ba ñu dikkee Tayba ba ñu dikkee Mbàkke Kajoor ndaw yooyu daal di nuyuwaat sëñ bi jot li ko tontal sëñ Tayba ba ba noppi sëñ bi laaj leen leen ndax am na ku ngeen àndal ñu ne ko waaw mu laaj leen nu mu mel ak lu ko tax a jóg ñu wax ko ko sëriñ bi ni ni leen dem leen ngeen woo ko ñu dem wax Seex Ibra ni ko mu yegg si ba nga xamante ni bi Seex Ibra jóg na ñew ba ba jakarlo señ bi melni ñaari bati womam mi dañu ko dam dañu dam sisam gi mu ni la fi suuf delu jog taxaw di xol señ bi ñom ñaar ñu xolante fa dir bu dir bu yag dir bo xamni bi bo fa rendi wonu gatt dana sedd señ bi neewu ko dara cheikh bi neewu ko dara serigne bi dor ko ni ndongali ana nga bayiko mu ne ko tay bala bayiko mu ne ko ana lu doon say tank mënu ko bëgg a yegg ci yàllaa ma tax a jóg loolu nag rëccatul ab dënn ndax nopp miin na koo dégg ba tax na na ko xol war a jàppe jàppeetu ko ni waaye lu rëy ngoog ndax yàlla du dëkk yàlla du jëmm ju nekk barab yàlla du koo xam ne kii daje na ak doomu aadama fenn ci ci xel ci xalaat ci jikko wala ci wenn melo kon ke jëkk wax ni dafa bëgg a yegg ci yàlla waxat na loo xam ne lii lii ko ci sëñ bi bëgg a tontu rek mooy tontam mu ne ko lu tax a jóg mu ne ko damaa bëgg a yegg ci yàlla sëriñ bi ne ko ah na diina indallahi lislaam jenn diine dee yegg ci yàlla muy diine lislaam dafa alxuraan wax ni wa man yabtaxi xeyra alislaama diinan fa lan yuqbalu minhu wa huwa fi l axirati min na ku diine woo diine ju lislaam deesu la nangul te loo loo jëf ci diine ju dul diine lislaam di looy ñàkk la yowmal xiyaam gis lu ko fay kon sëñ bi mel kon di ko tegtal diine lislaam Seex Ibra laaj ko ne ko lislaam nu mu demee شيخ سميني كو دين الإسلام على قمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وكو جرومي بانك الإسلامي نحن موي گم يالا اك يانتي صلى الله عليه وسلم نغو جيل وقت جروم دي وور وير كور نتا اسك اج مكه سو فكنتني سارتي دجي نانتي يو مونيكو من دي جوخنوب يالا لا توب شيخ رانيكو جوخنوب يالا لا توب مودي ما سيدلو كو خامني كي لغيال كو moma taxa jog ndax kima yalla setlo kuko ku ñak wi bakar, sa yaram ak sa bakare and génn ku ko da nga tàggoog bàkkaar mucc ci sawara tàbbi aljana te loolu mene su ko am ci jang ak juleeg wor ndax khila ak qawlani ak taraddud ak xilaafun des nako ci boromi way dis ko fekk ci yalla serigne bi ni fa ina hazi sirati mustaqiman fa yon wo yi mala la di ci nga ma fekk ñi nga fi fekk itam ci lañu ne te sax su ma xaman yàlla moom mii nga ni dangaa bëgg yegg ci moom fu mu ne fa moom nga may fekk kon doo ma fa fekk Seex Ibra ko ah daal sukk ñaari bëti oom joxuñ Sëriñ Tuubaa ñaari baaraam ni ko bëti xool kat laa am ki may seetlu ku ma gis teg ko ko waaye nag yàlla mi ma ko seetloo jox na ma ngannaay gu ma ko seetee ak ñeetuwaay yu mat sëkk te su ma ko fekkul woon muy dundit te ma fekk bàmmee mu faatu ba bàmmeelam rekk des ci moom du matee tee am li ma bëgg lépp ndax pas-pas bi toll na ni ni ko man ko ki may set mu yalla nak dama topu tankam topu tankam ba fi yow ma nopi ko gis soma ma génneele tànk ma génn dekk bi ndax dagu si wu ma mayit di wax ba tuddu malaw lax laa seex ni malaw seigne touba daal di xam ni malaw lax du lo xamni ni lu beggandi la kon ki amul kumpa seigne bi daal di jóg génn mbooloo mi cheikh bi topp ca ñu dem ba sori and wax ba yegg suuf del wax jog ba taxaw seigne bi door ko lo mu amulabeg, ko lu kenn amul la bëgg mu ne ko loo bëgg mu ko lu kenn amul la bëgg mu ne ko loo bëgg mu ko lu kenn amul la bëgg mu ko boo bëggee lu kenn amul da ngay def lu kenn deful dali ko ni fii boo fi defee lu kenn amul deful da nga fi amee lu kenn amul sëñ tubaa ne ko fii loo fi amul ci yow la seex bi ne ko fii lu ma fi amul dafee amul ñu waxante loolu ci seen jamono gisee sëriñ bi joxal ko boppam ab ëlléer ak simiñ teeñ ak goj ak baag yabal ko ca àll ba dellusi ci kër yi Cheikh Mouhamadul Bachir nee na sëriñ Cheikh Ibra ko woo nettali ko ni mu jëkkee gis ak sëriñ Touba ci saahir sëñ Bachir bind ko ci téeréem dafa wax ni Cheikh Ibra ma ne kaay ma nettali la la ma jëkk a waxanteeg sa bàyyi keroog ba ma ko gisee ca Mbàkke Kajoor keroog ban jëkkee gisee ci saahir dafa wax ni xàkka ala yamruduhu al kabiru Cheikh Ibrahima Fall وهو من فرسان نية الوثيقه قال لي أن أول ما حققت عليه شيخ رضي الله تعالى عنه من الأهل والبيهة قلت له إني لم يخرجني من بيتي إلى طلب شيخ موصل أجد من هاله نور حق تندفع أمامه سلمات الخلق وتنجلي به آيات الحق لو لم أجد أحد ممن هو هذه صفته إلى قبره لبلغني صدق نيتي فيه أملي وإني أبايعك على أن لا أسامن الدنيا بشعرة إنما همي الله ودار الآخرة nee na dama ko ni dara maa génn sama kër di wër adduna lu du wut ku yegg ci yàlla ku ca mën a yeggale kooke may seet nag du mag mu ma gis teg ko ko du ku rafet cool ku ma gis teg ko ko du ko mokkal alxuraan ku ma gis teg ko ko du koo xam ne kii waxtu wu ne mi ngi jullee ko jàng su ma ko gisee teg ko ko bëti xol la ma yàlla defal ci sama dënn bii moom lay këpp ci mbiram ajidu min aalihi nuura xaqin fekk ca leer dëgg gu koy fegal tan def yu amaamahu salamatul xalqi goo xam ne gi da koy fegal ci kanam la nabi bindeef yépp di ko wan kéemaani dëgg yi mu war a jaar wa tan jëli bihi ayatul xaqi di ko wan kéemaani dëgg yi mu war a jaar ba yegg ci yàlla te du nagg du naay du suruf du jaawale yàlla ak saytaane ni ko ki may sedd yi su ma fekk su ma gisee ku toll noonu donte dafee neewoon ba demit du ma wàññi dara law lam ajid man huwa hadihi sifatuhu ila xabruhu la balaxani sidqu niyati fi amali sëñ basiru nee na seex bi ni ko ma ni sa bàyyi su fekkonte ni fekkuma ci yow lu dul sa bàmmeel itam du tee li ma bëgg lépp naa ko am ngir dëggug sama yéene ak wérug sama pas-pas ak sama fulla kon nag ginnaaw gis naa la te yow mi yaay ki yàlla doxale digganteem ak jaam ñi yaay ki nga xam ni ku ko wuyuwul yàlla du la wuyu doo am li nga bëgg ci sa borom yaay bunt bi yàlla bi nga xam ni ci la la jaam ci la jaam ñi war a jaar seen borom maa ngi def li am solo muy jaayante maa ngi lay jox sama bopp adduna ak ndax jaayante mok diine and yonent bi sallallahu alayhi wasallam woote na fukki at ak ñett ci ñeen fukki atam la tàmbalee woote ba am juroom fukki ak ñett yoo mi ngi lu mu yi ak faasiq yi dinañ wuyu ni ko gëm nañ la te fekk dëgg ci ñoom di teewee jotaayam di jéggi waxtaanam ba noppee jóge fa yaq sa borom ni du lu nit wax rek moo ne ci moom wooteelu jaayante wooteelu jaayante laaj bakkan ak deret ku la ko nangu la jox nga xam ne kookee moo la gëm xan inna allazina yubaayi'unaka innamaa yubaayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innamaa yunkasu ala nafsi wa man awfa bima ahada allahu alayhi fa sanutihi ajran asiman yéen ci bi doon taal loxoom jaayante séexiru ni ko nag may maa ngi jaayanteeg yow inni ubaayihu ko dama lay jox sama bopp adduna ak alaxira ci kaw benn sart sëriñ bi ni ko luy sab sart mu ni ko Lendong dong la xamni de soo ko mënalul du luma la jox sama bop mu ko lan mu ko fi liggéey lu bari bari bari bari bari bari da nga makoy dencal ba yowmal xiyamatul akbar fa ndimbal jaf luma fi liggéey lu bari bari bari bul ma ci jox lu tolok sagaru ba sang lal wala neeg bu may dekk wala soxna sumay dekk wala dom bayima ma may la yalla fay nu bokk sëñ Basiiru nee na loolu la ko Cheikh Ibra wax sëñ Touba tontu ko ban noo dikk ci tontal sëñ Touba loolu yi nag ba Cheikh Ibra waxee loolu sëñ Touba yebal ko ci àll ba Cheikh Ibra di liggéey doo ngay jàng dem àllarba ak dibéer Cheikh Ibra moom boole àllarba ak dibéer ak altine ak talaata ak bis yëpp jébbal sëñ Touba nekk ci àll bi di liggéey kaanee rakku lay la nahaarin ba ñuy wax sax ni njébbalu Cheikh Ibra day دخوله في الإسلام يشبه دخول سيدنا عمر بن القطاب دفن روك جبلو سيدنا عمر بن القطاب ندخ سيدنا عمر بمدقة الإسلام تلا الإسلام أم إيمانا واتمئنانا تلا أم كولوتي أسيران سكيرتي أكوك دال ندخ فاستع بما تمر وعد أن المشركين لا يجوجي جناب بي عمر جبلو لواتي سين بيتم بيتم بيتم بيتم ñëwagul fekk na fa ñu joxe seen bopp di ñu leen digal ñuy def ngir waroogu sëñ bi waroog jamonoom ak ñoñ jamonoom ak ku fi mas a feeñ waaye na fekk na booba amagul yëggaguñu ci mu woote kenn mbàkke mbaa joxe ñaari doxo mbaa nuyoo sukk mbaa sujjóot fekkagul booba daana toog ci lal ñu fekk ko ca te way sawi fi zalika al xaasa wala ama ba loolu amee ba seex dikkee la mu jëkk jëkk jëkk jëkk dindi muy wéetal gi nga xam ne ba nëgëni moo fi am mu wéetal gi nu wéetal sëriñ Touba ci mu wéetal ko ci léppam loolee la ci jëkk xar tànkub tóoyam xam xam la ni kii du yéen du ngeen moom dal di tëral yoon wa nga xam ne mooy war ma ji war mbaa ja nga xam ne moom la nit mën a ëmbal sëriñ Touba ndax sëriñ Touba moom fa ko fa ko ab jaam lot na ci teg ko fa ndax akramtani ikrama man maa shaa faal wa kullu man aradtuhu min kan faal la sëriñ Tuubaa bindal boppam teraanga jooju moom jenn doomu aadama mënu koo teral sëriñ Tuubaa waaye kon loole ci la jëkk warmaal sëñ bi ber ko ci léppam sëñ bi nekk yabal ko ci àll ba muy liggéey fi ayaami shiddatihi wa uslatihi ci jamonoy liggéeyam ak wéetam ak tërbiyaam bu ñu doon waxtaanee li nga xam ne jëf na ko ci njàmbaar jëf na ko ci luy nuru ci ci ci ci lu jafeñ moom Cheikh Ibra ngir jëmmi sañ Touba ak nu sàgganee jëmmam ak nu sàgganee boppam dana bari lool ndax bokk na ci li ñu nettali nii Cheikh Ibra def na ko nekk na ci àll bi di liggéey di liggéey ba yére yi nga xam ne moom la indi woon ci kër gi xar ci kaw war a xar ak itam mbubb bu su dee mel ni ci yaram te borom su miwu ko fóotu ko ak ñaq wi nga xam ne mu ngi rote ci yaram waxtu wu nekk di liggéey ñaq wi dul fenn mukk guddeeg bëccëg mu di ko yëngu bu ma day mujj di ñor ci kawam di xottiku di dagg mu mu di ko sofale ak a dagg ak a faste ba far dara wëratu ko lu lu dul kawar gi ci yaramam rek ak téeñ bi ko Sëriñ Tubaa joxoon mu am bis nag muy xool boppam ba yaras boppam ba rus boppam nag wax ni naa wuti lu ma suturaale sama yaram ndax suma nit gisul tam jinne yaangi may gis ak malaika yi na wuti na yelwani luma doxale ci yi yàlla ci man ak sama bët yi aw xàll wa jëm ci dëkk am pass passu yelwani lu sol di dox bayam ci genn garab go xamni gi dañ ko cëgg ba dat ba wéx tal di xol garab ga rek di ko wër di xol garab ga di ko wër gis ni garab gi day raflel nañ ko ba mel man te taxul mu jog fi ko promo won mi ngi fi di fi xaar yàlla te yàlla dana ko fekkaat delloo ko càngaay yu gën yi ñu jële ci moom kon daal guy gi doomu ma ëpp gor mayit maa ngi dellu fi ma sëñ Tuubaa bàyyi woon te xam ne ku fàttewul guy doo fàtte doomu aadama dellu ci àll ba di liggéey ba saxal fa liggéeyu ñetti at ak nangam yoo xam ne saa yu dikkee ci kër gi andib liggéey mbaa jël si ndigale ko fi indi ba mu ñetti at sëñ bi tàmbali koo sa woo di ko jéem a wàcce ci biir liggéey boobu Seex Ibra da cee dëddu lépp luy àdduna bàyyi ci boppam fàtte ci lépp ndax xam nga ni jamono ji nu toll sëriñ bi xam leen ne bonuk jamono ji ak bonuk ñooñ jamono ji ndax dafa wax ni inna allazina taallaqu biya law laa taallaquhum biya la daxaloo naara baada bawtihim walaw mudatan qabla duxulihimul jannata allati wahidul muttaquuna moom sëriñ Tuubaa dafa wax ni jamono maag sa waraa ko jamaale képp koo xam ne ki wuy si nga ma jam naa sawara ci yow ku ma wuy wul sawara jam na ma ci yow kon nga xam ni tuumaalu ma kenn kon nit ñi bu fekkee tey la ñu gën a bëgg yàlla wala tey la ñu gën a am yéene jaamu yàlla itam tey lañ ko gën a tële koo làmb ab xolam ndem da nga ca fekk yàlla itam da nga fekk ca xolam lu dend ak yàlla loo xam ne lii la am ci jëmm ji sax yàlla amu ko ca koo gis yëngutoom itam da nga gis ca biir yëngutoom yooyu la ci jëm ci boromam la ci jëm ci boppam da koy ëpp fopp ba tax nga xam ni kon sëñ Tuubaa baax na ci jamono jii ba nga xamante ni nit ñi na yàlla war a toll ci xol tollu nañ ko ci seeni xol mën a topp alxuraan ci dëgg dëgg ay maanaam mën a jaamu yàlla ba jot ci leerug sama borom secret yàlla yàlla rek tax leen a jóg ñu gëm yàlla nañ ko war a gëmee boobee alxuraan moom nga xam ni moom la yàlla wax ni ma kaana xadisan yuftara walakin tasdiqa lazi bayna yadayhi wa tafsila kulli shayin wa hudan wa rahmatan li qawmin yuminuuna alxuraan moom ci weeru koor la ko yàlla yebal mu mu dikk di kéemaan bi gën a rëy ci kéemaan yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di mu di kéemaanam mujjisaatam mi ci ëpp doole bii nga xamante ni bi nit ñi bu ñu gëmee yàlla itam tey lañu gën a tëli jaamu yàlla mbaa seeni xol wéetal ci yàlla rek mënatuñ ko ba nga xam ni dara mën te dimbalee lu dul gëm sañ gëm yàlla gëm yonent bi gëm sañ bamba lu dul loolu mënatu la dimbalee li nga xam ne taxaw na taxawaayu alxuraan kon ci taalibe boo xam ne bii ci gëm sëriñ tubaa ak di ko liggéeyal ci nga mën a amee sa aajo li taxaw jooju alxuraan mooy Seex Ibra itam ci weeru koor woowu la la ñëw ci suñu sëñ bii di xaadim rasul sëñ bi li nga xamee ni itam Seex Ibra kon mooy alxuraani murit ñaari taalibe yu ne ak ku ñu mën a yaakaar ndéem mi murit lañu la kenn ka ñee morom ma mooy lam ko gën a nuru Seex Ibra te alxuraan dafa wax ni shahru ramadaan alladi unzila fihi alquraanu hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhudaa wal furqaan ومن شهد منكم الشهر فليصم هو من كان مريدا على سفر فعدة من أيام الآخرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما حدكم ولعلكم تشكرونه فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الله إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليت صيام رفزوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن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 am bis bo xamni wi señ bi da ko wolu wudlo ko di ko wudloo mbaar di ko lo ay gayet ay jeen yu meuna samp mbar muy liggey di gor di gor lu bari ba gor lo lu mu yakane dana wara meuna samp mbar mi dajalel gayet yu yeb bant ya tak ba mu deugur mu amone pas passu yenuko ba mu tello ci wara yenu nak say wi munu munu munu koo mu Jim Jim sayu mënta jog mu daldi di wat buum nga wat simiñ wa delu ci Allah ba di gorat di gorat di gorat ba gor lo xamni ni ci na lam doon jëkk bëgg yanu fop jal ba gëna tuuti di ko di roñ di tek ci bu mag ba ba mu mat mu fexé ba tak ko nga xamni say wi mu tim legi su fekkonté ni lam doon bëgg a yanu bari kon ñetti bërigo la war a tiim masalan mbaa lu ko war a ëpp mu fexe ba takk ko daldi di dànd say wi dal ko koy bi wax billaahi wallaahi wa ni ko yow say wi xamoo ma mbaa xamoo sëñ Tuubaa mi may liggéeyal ni ko ndax sëñ bi lu ma lu mu bëgg loola duma ca seetat sama bakkan te lu ma ko bëggal danaa ko man daldi ko ni yet lu ci am ma jël nga nangu nga nangoo dem ma yenu la yóbbu kër sëñ Tuubaa bi salaamati wal aafiyati nga noppalu noppal ma mbaa boog ma jaay la sama bakkan ba dee fi wàcc ndax dee ci ndigal laa ñaanan sëñ Tuubaa wa ilaa boog ma di fi sonn di fi sonn ba li ñu wax ni bàmmeelu ko war a génn ci doomu aadama mu génn ci sama yaram léegi muy meew mi nit jëkk nàmpe ci ndeyam kon bu yeboo meew mi ma jëkk ndey nàmpe ci ndey seen bu jaay sama ndey dana génn waaye faw nga dem mbaa ma dee fi mbaa loolu am daal di wax bismillaahi barkeb sëñ Bamba daal di fenku say wa say wa daal di koy fekk ci boppam mu dem sippi ko fi kanamu sëriñ tubaa ñaq wi rogalaat ci yaram sëriñ tubaa ni ko Ibra Faal mu ne ko Mbàkke mu ne ko ihlamu anal fawaida alal haqaidi wala yantafihu man laa yahtaxidi Ibra Faal xanaa xamoo ni njariñ yépp a ngi aju ci pas-pas yi yaar maa ko man te duma ko def dimbali ramu ko ñàkk jom ak jariñ ko amul pas-pas mën naa ko waaye duma ko def ni koy Ibra xanaa xamoo ni say wi indiwoo ko ndegam ñetteel bi nga yenu woon mu të bi nga nopp bi nga dogoo rek laa la fa toxale taxawal fa sama bopp te sama kàttan lëng na lépp sama doole man na lépp kon loolu nga dégg ci ne lu taalibe murit bëgg a defal Serigne Touba mu të na làmbu xolam ca la bañe waaye Serigne Touba kàttanam ak yërmandeem ak dooleem làmb na lépp te juboo na ak boroom Cheikh Ibra nekk ci noonu wax na ni itam ci nu mu fonke ndigal am na bis boo xam ni nekk na ci àll liggéey ba dégg gudd dugg ci tànkam bi ba jeex tàkk mu sëgg dem ba di ko bëgg a sekki ba jàpp ci li ci dégg gi mel ni dañu ko ngàdd foofee mu wax laa ilaha illallah moo man ndax damay bëgg a yàqule ana su ma sëggee di sekki dégg yi dee fi lu may wax ndax dégg sekk ji sëriñ Tuubaa digaluma ko ma wàcc fi lii ma digal di sekki dégg yi boo dégg dee samam rey fa ma dee ci lu dul ndigal kon lu may wax noonee la bàyyi digg ca tànk ba di liggéey ba la muy liggéey mat mu dem dooral ñaan sëriñ Tuubaa ndigalal su fekkente ni am na ci ndigal mu sekki dégg su ko amul mu bàyyi ko ci biir tànk bi sëriñ Tuubaa door a yéemu ca loola jox ko ca ndigal dégg nga sëriñ Musaa Ka wax na lu demee noonu ci biir waxam mi ngi Cheikh Ibra Fall yow mosulaa juyoog ndigal naka nga jóg të nga ndugal ku aw sa mboor duñ ko mbugal gër mi yaa tax ñuy texe yaa jëkk a jébbale sa xol fekkoon nga gaayee xor-xoral ñi lay taqal ñi lay nëxal yaa xaala ngër mii ñuy doxe yaa xam sëriñ bi yaa xereñ daawoo weranteekub sëriñ bàjjo bi yaa bari njariñ waane wi yàgg ngaa naxe am ngay ngërëm am ngay dërëm fab say dërëm jënday ngërëm loo ma sa am tàbbal këram ay junni daal nga daa joxe jox nga ko hadiyee yu sa fi ngurdu sa fi koom soldaar sa yaa joxe sa doom fa liilu faal am na texe sa ndaw da daan dem ba gabon di yóbbu ay saaku yoroŋ di war ca gaal yee yori boŋ doo denc lëf ba muy maxe moo tax nga mel ni ak saxaar kuy nar a dem dana fa jaar kuy ñaani paas na seeti gaar bul nekk ba naa naka pexe jamono yooyu nag nga xam ne Seexu daa ngi ci àll bi riir mi bari coow li bari ci fii mu teg sëñ bi wéetal ko teg ko ca kaw ni ko yaay buur maay baadoolo yaay sang maay jaam yow lañ war a liggéeyal maay ki la war a liggéeyal yaay ki ñu war ma war a war maal kenn waru laa fekk si ci lenn wéetal ko ber ko ba nga xamante ni bii teg na sëriñ bi fu ko kenn musta teg loolu yi nag dafa am riir def coow sëriñ bi daal di mujj nag xam la ni daal di wo daldi woote ci murit nag daal di sos yoon mu xam la ni lii mu ne mooy dëgg te ci laay woote muy yoonu toroxlu ak ñaq joxe ak liggéey ak jébbalu daal di wax ni amara ni rabbi bi bi an usarriha bi anna ni malazun waximan wa mafsaun fa man araadal xayra fii kiltiya daarayni falyalus bii léegi sama borom moo ma digal ci ma biral sama kàddu wax ni man dong maa mat wéeruwaay maay làquwaay maay rawukaay bi nga xam ne ku làqu ci man la nga bëgg da nga ko am te dara du la mënal dara képp koo xam ne ki bëgg nga yiw yiwu adduna yiw alaxira falyalus bii na wéeru wéeru ga mooy defub taali bi defu murit jébbalu wax ni fa kullu man bi yet te àllaxa najaa min kari dunya fi yawmi najaa fa kullu kullu muridin bi yalus yasadu wa annahu min al azamu baadu sëriñ bi seex la nekk ci noonu ba am bis wax nañ ci loolu jamono ci ginaaw bi mu wàccee la wa ilaa ci catal liggéeyam nekk na ci àll bi di liggéey ba wopp wopp ju metti am ay fan yoo xam ni génnul sëriñ tubaa door ko yég ko daal di yebal yebale yebal yeb la fa aw nit ni leen bu ngeen demee nii leen Ibra Faal maa ngi koy seet te ngeen ni ko seere naa ni yëg naa ni yaramam woowu yi di wopp di metti ba tëral ko xëyal ma ak gontal ma moo ko moo ko ko yóbbe ngeen xamal ko ni ko maa ngi koy seet te maa ngi xam loolu seere naa ni yaramam woowu yi di metti ba tëral ko xëyal ma ak gontal ma moo ko metti loolu seere naa ko daldi aman pas-pasu bind ab bind ay téere ay ñaan wala saafara jox ñooña waaye ci kashfu gi ko yàlla defal xamal ko ba baatinum nit moom Serigne Touba ak lay yëngu ci xolub doomu aadama te waxu ko ko xam nga mu xam loolu lu wax ni wax wal xabiru lasi bil xëy bi yuxbiru nii yàlla aji denji kumpa lu mu yég yëgal ma ko mu yëg ni ñoom ñoo ñi muy bëgg a jox saafara soos yi ñu ngi fas ci seeni xol bu ñu génnee naan ko sëñ bi daal koy bàyyi daal di leen dem leen noonu ba ñu demee seeti Seex Ibra ba ñëw dal di yëglu bañ nee ndaw yu bàyyi ko ci kër Serigne Touba la Cheikh Ibrahima moo wax ca biir néeg ba mu dëkk tëdd fekk am nay fal taalu taaluñu néeg ba mu wax ne bismillah nee leen leen ñu yegg si ba ñu dikkee ba nuyoo taxaw ci bunt bi la jógal boppam wax ne ah wax ngeen dëgg yéen ay ndaw ngeen yu bàyyi ci kër Serigne Touba bi ngeen ma xoolee laa wér saafara sam leen doon bëgg a jox tefar ko bàyyi mi ngi mu def ci seen xef yi bi ngeen ma gisee mën a gisee laa wér daal leen lu mu wax. ne ñu ni ko nee na mu ngi lay seet tey seere moom ni sa yaram woowu yi di metti de ba tëral la xëyal ko ak gontal ko rek lu ko yóbbi nee na nga am njoowaan gii di ci noppalu nee mu leen ah indi leen daal di koy nangoog yaari loxoom raay ci kanamam daal di teg fi wetam daldi wax ni wax na dëgg nee leen ko njowaan gi de duma ko delloo dama koy barkeeloo waaye bu ma joowti dem ma àjjana nee leen ko moo ma jëkk jóg fopp te moo ma man li mu defal yàlla mënuma ko ko defal mukk fam tàmbalee tàmbaleewu ma fa te ba nëgë ni wàccagul kon nag feeg mi ngi sunu kanam di jëf rek na fi gannaawam di jëf loolu dëpp ak tont la ko sëñ Tuubaa tontu woon ba nga xamante ni bii mi ngi waxoon na ko loola sëriñ Basiiru bind ci téeréem ni fa qaala lahu cheikhuna radiyallahu taala anhu ya ibraahima fall أنا لو, لو لم أجد من آثاره صلى الله عليه وسلم إلى منظر هذه النجوم والسماء التي تحققت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها لوثقت بأن نيتي فيه ومحبتي لكفيلتان لي بقضاء الهادي واللغز باليد أن سابقة الأسنى من الله تبارك وتعالى لمن رزقه الإيمان والهب فيه على أني أباهك على الامتثال والاجتناب وترقية الهمة إلى الله تبارك وتعالى ولا ترجمني في الدنيا عريشا يذلك يطلبك فضلا أن أهل ودار mu leer la ni su fekkonte ni danoo tàmbali woon ci waxtaan yi di la wax ni Cheikh Ibra kat mi ngi sant Faal bàyyam dëkk barab sàngam ndeyam dëkk barab sàngam di la jéem a woon ab juddoom di maanaam luy nuru siira kon dafay am geneen jublu gu waxtaan yu mën a mën a beneen taawil bu muy mën a am su fekkee xamub juddoom rek nga soxla buñ la nettalee jëfam dana la xamal mooy kan ndax nit ku ne na mu juddoo rek na lay jëfe ndax ñoo ñi nga xam ne ñooy borom juddu yu rëy yi di borom yax yu yax yu yi ñu doon nguur ku ne xam na ci ñoom ni lu mas di wut bëgg ko te mënuñu koo ñàkk seen bakkan lañu koy wute bu dee pal seen jabar la seen bakkan lañ koy wute bu dee ndaw suñu bëgg seen bakkan lañu koy wute bu dee suuf suñu bëgg seen bakkan lañu koy wute lu ñu seen bakkan ba am ko fa leel hamdu bu ci seen bakkan desee fa hamdu kon loli yi moo lay xamal juddub seex ndax bi mu jógee te dara dara dara du bëggam lu dul ngërëmal sëriñ tuba bakkanam la ko wute musta dugg ci lenn moom seex ibra loo xam ne lii du bakkan xaju ca li sëriñ Tuubaa wax ni min jaysasin ilaa wamsasin fi ma kutiba lahu min al ayati wa zikril hakim diggante ama jaysasin gi mu demee ci géej gi ama wamsasin gi mu fekkee rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama musu fee dugg ci dara lu bakkan xajut moom sëriñ Tuubaa kon ñoom seen jëf jooju wane na seeni juddu sëriñ bi nag dellu ci àll bi moom Seex Ibra nekk ci noonu rek mu amee ñetti at ni ko Seex Muhammadul Bachir waxee nee na sëriñ Tuubaa bi ko Seex Ibra waxee loolu daf ko ni yow day Ibra Faal pas-pas bii nga jaayanteeg man mu ngi may fàttali bi ma jaayanteeg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi bi may feeñ jamono gàddaay yi ngi mu jóge madina makkatul karam dem madinatul munawara ma gën na sama judd ci sa yi junniy at ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukki at te boo fekk na yonent bi def na góor nu ne nit ku ne am na lu ne ngir jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa ba ñu bari defewoon nañ ni kenn du leen jéggi mbaa kenn du leen romb mu gën caa mu gën caa raw nag ca ñooña ñeenti góor ñoo xam ni kenn ku ci nekk gorom la nga ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xulafaawul arba ñu ñaar di Ababacar ak Omar kenn ku ci nekk yonent bi denc na sa doom Ousmane ak Ali kenn ku ci nekk denc na doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii genn doom ki ñaari doom ñoom ñooñi kenn ku ci nekk taxaw na fi taxawaayam waxe na fi doom wuutu na ko fi bañ fi jógee ay imatul arba di imam Chazali ak Abu Hanifa Anbal ak Malik defoon nañu ku dul saxaaba yi doo leen raw ba ñu fi bàyyi ko abu abu Cheikh Mat Tijaani ak Xadir Jilaani ak Cheikh Matar Kunti waa Saharal Kubra ak waa Maxribul Aqsa defoon nañu kenn du leen jéggeeti ma door a feeñ fii fi Mbàkke Bawol feetu gaar bi bi mu ganee àdduna sampu xelam rek wuti góor ña kenn comme ci wan gannaaw ba nga defee dana doyloo jiitu gëm la jiitu mu fexe ba jiitu ka ca sa kanam te mënoo woon a fexe ba yegg ca bu kookee defee ni dana jiitu ga dana ko doy sëñ Tuubaa nee na ma daw ba ni rëkk ci biir saxaaba yi ñu defee ni damay dooloo ànd ak ñoom waaye fekk li ma soxla mooy yu sayiru ni kal aali wa sax bi sarmadan wali xaada sirran xaaba an xayrihi l ma bon saxaaba yi gannaaw ba ni ni dana rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallama ba ni ñàpp ci moom ni mu ko waxee ni naajeytuhu wa ajaabini bi luzi bihi xat sirtu lil muxtaari kal jaarini ba foo mën a taxaw ci adduna boo ne xaadimu rasul alayhi salatu wasalaam maa man rek maa yëkkati sama loxo daal di ko ni Ibra Fall pas-pas boobu yi nag su ma fekkul woon ci àdduna téere bi di alxuraan karim fekkuma fi hadis fekkuma fi bàyyi lu bon fekkuma fi def lu baax fekkuma fi kuy jaamu yàlla fekkuma fi kenn ku bàyyi li yàlla tere itam su fekkente ne leer na ma ni asamaan si mas naa tiim yonent bi te ma xam loolu rek mas naa jaar ci kaw suuf sii mas naa xool biddiw yi لو لم أجد من آثاره صلى الله عليه وسلم إلى منظر هذه النجوم والسماء التي تحققت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها لوثقت بأن نيتي فيه ومحبتي لك في التان لي بقضاء الهادي ولا الصدب بليت أن سابقة الأسنة دانا دوي لو لولي كيب تيم غوغي ما سمان سي تيمات أقوالات غوغي ما may بديو bi بخولون yonent ما دوي سك وكيل ولف نك بما wulif nag لو ma لي تلا loo بنكن أك القرآن السنة ب yonent يوير بما ak alquran ak kon ginnaaw yooyu itam wane nga ma boobu pas-pas maa ngi lay nangul sa njébbal ini ubàyyi mu ka may itam ci kaw benn sart sëriñ ba Basiiru nee na ma laaj Seex Ibra ni ko luy sab sart ne mu ni ko sart bi mooy alal imtisaali wal ijtinaabi wa tarqiitil himmati ilallaahi tabaaraka wa taala lu ma la digal da nga koy def bañ cee seet dara lu ma la tere nga bàyyi ko bañ caa seet dara wa tarqiitil himmati yi tabaaraka wa taala yëkkati sa yitte ak sab xol jëme ci sa borom wala tarju minni fi dunya arishan yadluka yadlubuka fadlan an ahlin wa darin te nga boole ca loola nag bañ a moom ci sa bopp dara bañ a xam ci sa bopp dara te bañ a yaakaar ni man nag li nga fi liggéey ci àdduna danaa la ci jox lu tolloog sagaru basang mooy lal di ci toog bul yaakaar mukk ci àdduna ni dinaa la jox ci sa liggéey lu tolloog sagaru basang genn kawar wa ilaa mbaar mu lay tiim di la keral loo liggéey lu mu bari bari bari bari bari da nga koy waat ba yowmal xiyaamatul akbar lu ma yàlla fayanu bokk cheikh mouhamadul bachir nee na ma daal di laaj nag Cheikh Ibra kon ni ko waaw googu jaayante kon lu ko dindi nee ma ne ko booba tey deñut mu ne ko damaa gis ko ànd ak sëñ Tuubaa ak ko àndut ak sëñ tubaa koo ne barkeb Ibra Fall laa lay bëgg yu dana ko nangu fukki loxoom lu ko gëm kon ginnaaw yow noon nga ko loo fi liggéey mu dencal la ko yooyu itam waxoon na noonu na la loo fi liggéey di la koy dencal ba yomal xiyaamat akbar ana kon lii nga am foo ko jëlee Cheikh Ibra nee na sëñ Bisiru nee na Cheikh ni ma loo ma giseel ci àdduna lu mu bari bari bari bari bari faxasiti um ya ma ko sukkale woon keroog ba may jébbalu ca moom la waaye lu ma mas a liggéeyal sëriñ Tuubaa ma nga yomal xiyaam di ma nekk moo tax sëriñ Basiir wax na ci téeréem wax ni Ibrahima Fall lam yam di ala mubayiatihi lahu sinoona xatta ci mahat fi amrihi wa nahyi wa nahyi fi amrihi wa nahyihi ala tarbiyati ulufun min al murid salikina ana yadihi wa aslama bi sababihi ulufun min al fasaaxi kajoor wa bool wasin min al buyutul umaraahi wa atbaahihim Seex Madu Fall Sadio nee na am na bis sëñ Tuubaa jox na ndékki ci njaarim man ak seex ma sàmba ak seex Cheikh Mouhamadul Bachir nee nuy ndékki ba ci yàgg Serigne Touba ni Ahmadou nee ma ne ko Mbàkke mu ne ma ndékkil te ñëw ma yónni la nee na ma ne ko waa Mbàkke dellu ndékki mu ne Ahmadou ma ne ko Mbàkke mu ne ma xaw ma génn kër de waaye sama kër gi lu fu waaye liggéey Ibra Fall am ci nee ma ne ko ndokk Mbàkke mu ne Ahmadou bu leen defee dama ko beral loxo mbaa dama ko bëgg bëgguma kenn bëgguma doom bëgguma mbokk bëggub jaambur loolu dëppoog la mu bind ni mahat mahabati al muxtaari sayidina hubbil maxaaniya wal ahlina wal walada waaye nag yéen a Ibra Faal la yem ci man ndax dafay ñëw joxe boppam lu mu luñ ko digal mu def ko luñ ko tere mu bàyyi ko yéri ci loolu li ngeen ne waaye li gën a jafe ci Ibra Faal am ko mooy xol bi dafa gën a amul kanam ak gannaaw Ibra Faal daf maa daf daf maa jënde boppam jënde may bokkam jënde ma yàlla mi ko bind moo tax danaa ko defal ci boppam lu mu ci mënul danaa ko wutal bokk yu gën i bokkam danaa ko maraleeg yàlla boromam Cheikh Madou Fall Sadio nee na loolu li la Cheikh Ibra wax sëñ Touba wax yónni ma kees wooloo ko Cheikh wooloo ma Cheikh Ibra ma wool ko ko euh, loolu nag nga xam ni ni ma ko waxee woon ci njëlbéen gi ni waxtaane ak taalibe sëñ bi foo koy bëgg a teg fekk na boromam teg ko fu ko gën a kawe te mu saat moo fonk moo fooral lu mu tumuranke tumuranke ci say nopp ba boo ko diggee fenn dara la moom mëq suuf la yemale ndax sëñ Tuubaa jenn daraja la daraja woo te jooju kenn dootu ko ca fekk muy béxatu si wàll islaami bil islaami wa ubtu gaaniman bila malaami nee na xam ngi ma xam ne yomal xiyaam ku toog fi sa kanam borom da nga sëgg ba mu des man nee na loolu doy na ma muhjisaat ndax sëriñ bi loo dégg mu wax ko lu mu rëy rëy donte da ko bind ba nga defee ni dara la fekk na du dara fi sëñ bi dafa dem ba boromam wax loo ko ñàkk wax kam koy wax maanaam ko andut ak man def nangam ak ku andut ak mel man mel nangam loolee muy wax wa ilaa maa am nangam wala maa làq nangam du caageen lu muy wax ngir bëgg caa wane boppam wala wane nu mu toll ci boromam waaye layu lislaam la moom Serigne Touba ci wax ni mu toll boromam sant ko ko ngir képp koo xam ne kii dégg nga wax jooji wala nga gis jëm jëf jooji te taxul nga ànd ca bu yomal xiyaamee wàccoo nga ak sëñ bi ndax Serigne Touba yàllaa ko wootaloo ñëpp mu taxaw fi taxawaay bi rasulullahi sallallahu taala alayhi wasallam sallam wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin na arsalna ila kaafatan linnaas bashiran wa nisra walakin aksaru naas la yahlamuna ni ko alquran wax kon li nga xam ni kon moo am solo ma jublu ci wax ji mu dig talibe ak taalibe weesuwul noonu nga xam ni incha allah jombul ci yeneen waxtaan daañu ci mën a indi e, mujjug liggéeyam ak na ko sëñ bi wàccee moom Seex Ibra ak dëkk yi nga xam ni sanc na ko fi ak li ko dellu siwaat kees ba ak mujjug dundam sëriñ bi nag li nga xam ne moo am solo cib taalibe ndax ak taalibe cib taali cib taalibe rek lañ koy nangoo ci lañ koy nawee itam sëriñ bi wax ni masalul murid fi ibtidaahi islaamihi كصبي الذي خرج من بطن امه فهل عرفت ما ينفق هذا صبي خير لبن سيرن توبا دافا وخني يو طالب ويل تخ رفال دي, دي يون وي دي رويكاي وي موم سيرن بي مو واخال بوبام ني اب طالب مريد ميغي ملني لير بيغا خامني داي دورو جودو لغي دي دورا غاني ادونا دي دورا غاني ادونا سي كولوم نيم نيمكو بيندي دال دي لاج ني فهل عرفت ما ينفق هذا صبي خير لبن ndax lire bi doora judd xam ngeen ko benn dund moom bu ko mën a musal budul weenu ndayam ndax ab liir lim fekk dee si ko dunde bari na ceeb bi dund la yàpp yu dund la jën yu dund la cere ji dund la waaye ndaxub liir moom am na lenn lenn lu ko mën a jariñ dara lu dul weeru ndeyam ngay bëgg tontu Serigne tubaa giñ te Serigne tubaa lu ko jaral giñ rek lu ko ca mata lu ca dëgg la ci lu wér la ci moom daa neex wallahi in lam ran amina sa yakunu maridan wal mardu huwa sababul sababul mawt ab liir di su xeebee ci boppam weenu ndeyam na yoonu alku na yoonu dee feeg wàcc ko loolee muy xool ba jënd ko weenu ndeyam du ko mënal dara loolu kon sëñ bi léeb na ni ab taalibe lu mu fi fekk ñu ni baax na loola baax na waaye moom leen rekk baax ci moom muy sëñ Touba daal wax nag ni ma waroo ak ndey jooj yi ndax bari aana na ku juddu doo mënal ceeb bi dara doo mënal yàpp yu dara te sa ndey joojee la jur amee muurle wala mu ñàkk soow wala ñimewulum nàmpal sëriñ Touba nee na ba ma leen waxee ni may seen ndey te amu leen lu dul ma nit yett yooyu leen daluma ci اعلموا بأني أم كثير اللبن لا يفني لبنها ومن ومن ردها منها كان قويا وهاقلا نانا ndey laaju barim sow ndey laaju ñimam nampal te awma muurle ku nampe ci man noo tulluwul ci yow la waaye nu ma munte di def nit amut boo ne jàkk ceerno bi dafaati rakkam ji fii mu nampe gis seex seydil muxtaar fii mu nampe gis seex masamba diop sam fii mu nampe gis seex isa jenn fii mu nampe gis seex ahmadou ndumbe fii mu nampe gis Cheikh Ibrahima Fall jaamam bi fi mu nampe da nga xamni Cheikh Ibrahima Serigne Touba no nu mun munta def nit amul kep ku koy tuddoo noo tolluwul ci yow la wala sa pass pass toll na waaye nu munta def nit amut lanuy dimbali nak moy fam famkusoo fi ummahatikum hatta balaxtum ajalil fitaami wa in fatamtum fala takkulul arda nina sax leen ci man tambale ci man di yem ci man bañ ma wecceeg dara bañ ma jindé dara bama feral leen sama bop te kuma ci feral bul maq ana luy maq ci talibi وإن فتمتم فلا تأكلوا الأرض جوجي arda joji mu wax wa ما taama namp تي ma ba fer te ku ma ci feral bul maq suuf day leen سيرن توبا ana luy ان الارض التي منعتكم باكلها هو حب na alamoo والطعام الذي امرتكم باكله هو حق ترك huwa hubbu سيرن توبا iyaluha نوني nga xamni souf dana ko def gone ga ngeen gis mu diko mak nako souf jàppe rewen ci ko reeyal kollu ba leral yaram ma jàpp tànk ya yak kanam ga def ci moom ab xeesaay boo xam ne bii day nuru ak leer te ak xiibon rekk ak wéradi nee na loolu am na lu ko mën a def te nit taalibe la ba noppi bëgg maa booleek loola loola mooy adduna Sëriñ Tuubaa wax na ni bu leen ma booleeg adduna déggoowunu ndax dégg nga mu ni am sa tutayibu nafsi kay ami laha laha waxaawalat may la xalbi bil hadiyaati